xayruhu ku dul ibnu nasir fal misku gëtt asfar ga aji gëtt alkadi ba aji varié mooy bu amul xet gëtt gu varié ak boo xam ne ne dafa am xet xet guy bond ñaar yooyu duñ benn dëgg la ñaar gëtt la waaye nag xemuñ yow mi bëgg jub ah dëgg la ku baax nga nag waaye merooñ sama sëriñ rek laa wax de taalib yi bëgg sëriñam de loolu koy tax a jariñ Hmm. rawatina boo amee sëriñ bu <coughs> walaas bu ndox mu neex hmm. mu ne yaxsuru dana bëri bil xiyaadi ci mbalke hmm. walam yarit waaye rootut mukk maa ndox ka saddaa bu mel ni saddaa u saddaa mu def ko maqsuur kooku dagan na ci way xilta njort nga ko min sa min mutawaridin ci aji root mu ne dëgg ndox yi bëri nañ ci mbalke yi waaye ndox mu mel ni soda moom bu xalaat mukk ne dana am ku rot ndox mu mel noonu ndox mu neexee noonu mënul xam kon ñi baax bari nañ waaye ku mel ni sama sëriñ moo xamut gis nga de mu nekk ñoom tagg na sëriñam waaye taxul mu wàccee garaatu ñeneen ñi waaye léegi ñu ngi toll ci jamono joo xam ne ku am sëriñ ne moom la ku dul sa sëriñ wala ñëwul sa sëriñ nga ne xamul dara maanaam man damay toog ba man damay laajte ndax jamono ji maanaam njub dafa soppeeku wala lan la qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a maanaam affaire yëpp mun kar la léegi mënatoo xam maaruuf léegi te ngay gis lu lu doy waar ñu ñi ñi di werante baax na baaxut affaire bi jaaxal la daal loo xam ni yow pour yow lii nit ñi warul ci woon wax sax hmm. gis lu baax ñu di ko sànni hmm. man daal affaire bi daf may jaaxal léegi lan la daal xaw ma njabar daf ci ànd xaw ma leneen daf ci ànd xaw ma bëgg àdduna mais yaakaar naa daal affaire bi rax na <coughs> dégg nga mhm. nit dana bëgg sëriñam ne sama sëriñ rek ku dul sama sëriñ xamul dara wala mën naa am sëriñam ku baax la mhm. la muy waxit sëriñ bi waxu ko mhm. waaye moom taalib bi ëppal na ci àq sëriñ bi rek ba xasaale ñeneen ñi te dëgg-dëgg bu dee sëriñ ku baax la ñeneen ñi baax boo xasee ñeneen ñi rek xas nga sa sëriñ parce que li nekk si sëriñ rek moo nekk si sëriñu gars yi dafa am lu am solo mooy xul man kaana aduwwan li jibril alquran bul xool li muy wax rek xoolal li wax ji làmboo boo noonee jibril noonoo nga mikaayil noonoo nga yàlla noonoo nga yonent yi noonoo nga ñëpp lu tax parce que jibril ni mel noonu ñooñu mel nga bëgg nga bay bëgg ñeneen ñi bañ jibril te ñoo bokk melokaan lu mun nekk moo tax boo bañee benn wëlli yàlla bañ nga wëlli yàlla yëpp bëggatoo kenn boo bëggee wëlli yàlla da ngeen bëgg ñoom ñëpp mm-hmm. waaye ñu toll jamono joo xam ne nee <coughs> saa yu kilifa génne àdduna ñu mm-hmm. yàlla samp xalifa loolu dëgg la du mm-hmm. bokk mukk ci ñuy weddi ne xalifa yàlla dana am saa su nekk ngir bëgg lu neex ay nit su boobaa nga weddi yàlla ak yonentum weddi sa sëriñ kon xalifa yàlla dana am jamono ju nekk mm-hmm. euh, bu ko wooteel bu ko wooteel koo xamul ne moom la nag <laughs> yow maandu ci rek mm-hmm. diw mooy xalifa yàlla te leerul la mm-hmm. sos rawatul ko ci jamono yi ko <coughs> li yéeme nag mooy bu ñu ne xalifa yàlla taxaw na ci jamono ka njëkkoon a nekk xalifa maanaam ka fa nekkoon ña ko toppoon ñëpp yàqu nañ xel sa moo lool xam nu ñu mel yàlla yónni wëlli yàlla def ko muy xalifa nit ñi liggéeyal ko ba mu gërëm leen hmm. jox leen lijaasa may leen digal na leen ku ngeen joxati ijaasa ko ku baax la ku ngeen tarbiyee ku baax la ma ngeen tarbiyee nit jox leen ñu am ijaasa hmm. su ko defee yow nga ne kooku ba mu fa jógee yàlla jël équipe boobu yëpp ne yàq yàq ñëpp falaat beneen waay ak ñu ko topp kooku bu dee yàlla yàq ñu ko topp ñëpp falaat beneen waay ak ñu ko topp kooku bu dee yàlla yàq ñu ko kenn lay baax di am xam nga loolu maanaam dof la daal mm-hmm. diw mooy xalifa yàlla jugee na fi mm-hmm. léegi diwul mooy mooy mooy xalifa yàlla ci jamono xalifa sax ak yenn maqaam yi du benn mm-hmm. du tudd tuur parce que lii daal yee la mais mais daal yee affaire tasawuf la moo tax bëgguma tudd kii waaye xalifa yàlla ak maqaama du benn xalifa yàlla moom benn garaat la rek ci garaatu benn maqaama rek garaat la boo xam ne nii <coughs> ah, yàlla mën na ko may ku ne waaye nag ñëpp yàqu nañ loolu laa moom du bees loolu laa xam fu ko nit ñuy jëlee yow kay sa sëriñ mooy xalifa yàlla ku mu neex bu neexee nga ne ma sama sëriñ mooy xalifa yàlla bu dee loolu nga waaye nag ñëpp yàqu nañ kenn xamatul tus a ah, loolu du dëkk yàlla du defee noonu daal yàlla du defe noonu daal jibril man li ma nekk baax na ñëpp nangu nañ ko maa la jox ijaaza ne na yow képp koo yarati mm-hmm. jub na jox ko ijaaza mm-hmm. jub na koo kum yar jub na koo git kum joxate ijaaza kum yar jub ma génn fi rek ñu ne yow ijaaza bi ma jox amatul njëriñ comme man noonu la koy joxee kanaa man xaw ma ne bu ma génnee àdduna du am njëriñ lu teemale la bu ma génnee àdduna nag demal xam nga loolu man daal loolu bu déggee ni bi daal dafay man daal ñii yenn façon nit lañ daal <coughs> hmm? Hmm. bu bëgg yërmaande te gis nga islam diine xel te li mag ñi nekkoon lépp lépp ci lañ nekk Sukayru ji bind na ne sëriñ bu mat hmm. bu xam la bu génnee àdduna képp ku joxoon ijaaza ku jokk ci moom wala nga jokk ci ku jokk ci kooku rek dafay mel ne yaa ngi jokk sëriñ boobu direct mbir mi du dagg hmm. lii Sukayru ji bind na ko gars yi boo ñu ne ñu wax koo xamul dara <laughs> te bàyyi di di sukkandiku Sukayru ji xam nga boo demee ba jël Sukayru ji sànni ca mbalit ma parce que li wax arrangé la hmm. yow jubatoo de demal ci Cheikh Fouti mhm. rima ba Fouti <coughs> mu ngi wane ne nit boo ko toppee te yàlla sax sëriñ boo ko toppee te yàlla tax mhm. mu génn àdduna lu diir bi yàgg-yàgg mhm. ndem yàlla taxoon nga ànd ak moom mëdër bi dafa yegg si si yow jëru sax bu sa sëriñ sax bu génnee àdduna boo la neexee bu jokk ci kenn bu dëgg jokkoo gi dëggoo boo waxee moom Cheikh Fouti ñu ko xamul dara ñun bàyyi lañ wax bu Cheikh Fouti li ko bàyyi teg fi ko bàyyi teg ko koo xamul dara foo mu tudd tur waaye dama la bëgg a wax ne la dof yow soo ko déggee faxas ko mu jàll te nga dem doxi soxla yi yàlla buur bu bëri yërmande la daayira islam ñëpp jub nañ <coughs> mën nañoo rawante rek daayira imaan ñëpp jub nañ ihsaan ñëpp jub nañ rawante nag fu ni la am maa raw daal mën naa ko dégg waaye maa baax kenn baaxut loolu de mënuma ko dégg moom te boo maa rawit war ngaa wane li nga rawee hmm? Hmm. wane maa raw man ngaa wane li nga rawee te maa raw sax di ko puugaroo baaxut daal tasawuf daan def yërmande ci xol yi mais tasawuf léegi soxor lay def ci xol yi yow da topp sëriñ nga soo sa yoon ñëpp dugg safara ndax lan ndax toppuñ ci sëriñ bàyyi si tukkee mi mbind na leetar mais bu fi jógee jël juróom-ñaari muqaddam ci muqaddam yi ne nit ñi nañ leen topp ñooñu kenn wutuwul ci xut bu zaman gannaaw baay te kenn toppul ci kenn xanaa baay dafa xam woon ne moom bu jógee affaire day yàqu mm-hmm. bu fekkoon ne baay bu fi jógee foo ñu topp jëmm jooju pour doolu baax mm-hmm. bu fi jógee def naa nañ topp ñooñu mm-hmm. nañ topp kooku waaye du jël ay nit ne ñii kuñ ci topp baax na mooy ne kon gannaawam it ñi mu defar jub nañ loolu la wax ji bëgg a junj bu fekkee yaa ngi am xel hmm? xam nga waxtaan wax dëgg def cee bokk li ma la njëkk wax mooy buñ la xutbu zaman amut hmm. boo ko waxee doo ko mën a lay de hmm. waaye bu amee it boolem ku bàyyi joxoon ijaaza ku amoon ijaaza ba léegi fa nga nekkoon yaa ngi fa hmm. dañ ko séddaloo rek ci loxoom lay jaar waaye nag <coughs> nekk la nga yelloo dañ la ko jox <coughs> bàyyam génn àdduna si daal yi da samp mi xalifaam dégguñ ko mu woote benn maxaam na toppul kenn kanaa kon léegi si daal yi mi bàyyi wax ne mooy sëriñu doomam yi si moom xamutul dara doom yi xamuñ dara doo seetlu loolu hmm. maanaam maanaam dof gi nit ñi dof man léegi daf maa jaaxal quoi dof giñ dof moo ma jaaxal léegi gis nga réew mi hmm. am ñoo xam ne ñoom di leen intéresse mooy lu doxal réew mi président bu fal wi danga leen jox seen cër hmm. parce que ay liggéeykat lañ ñoom ay ay di mooy président di mooy président di ci coow ba waxtu bi jeex mais liggéeyal leen réew mi. Hmm. yow bu dee ci fayda nga bokk. Hmm. liggéeyal lu émence loo fayda bi defal lu yëkkati hmm. mais kañ fal muy xut bu zamaan si jamono kañ falut. jërul yàq sa temps. waxuma ne baaxut de. mën na laa may ndollal. waaye nag jërul bu fekkee dafa dem ba nga tax nga jël ñu ñu fayda bi yëpp xarak leen duggul leen ci benn gaal. amatul njëriñ. <coughs> comme président Sénégal rek la mel. Mm-hmm. sa sëriñ baax na waaye defal ni borom daaye. wal mm. naataange. yàq <coughs> dana bëri lool. dégg nga. Mm-hmm. ca xuriya mm-hmm. waaye waram yoru gubut. yarit mooy roofut yarut guubut mm-hmm. ka saxri lu mel ni saxra wa sandaan ak sandaan mm-hmm. min mutarawidi ci aji guub mm-hmm. guub mooy kuy sàkku ñax ñax yi bëri nañ ci xur yi de waaye ñaxu mel ni saxra sandaan kenn mënu koo rod de kenn mënu koo góob de maanaam bëriwut wala amut waaw d'accord lii de mën nga koo wax maanaam ñax yi am nañ xur woo dem sa jur mën lekk ba màndi mën a lekk ba suur kon laa bëgg a wax waaye nag sax daa sax kooku moom bariwut daf ne sëriñ si ay sëriñ lañ mais kenn melu ni sama sëriñ lii de mooy tag lii nag comme ne wax ko nag kenn melu ni sama sëriñ taalibi bu ne moom la war a wax ndax loolu su fiyan ki jàngale sa sëriñ da jàpp ne moom moo raw ñëpp ndax looloo tax nga topp ko bul gis kenn ci kawam waaye nag bul gis ne ñeneen ñi baaxuñ aleykum salaam wow baabu daj la ta fuuritu ndoxam daj la lay sa nekkut kal baradi comme temp temp temp allazi gi nga xam ne samidun xont la saraahu ndoxam mu xëb ma mu nax ma wala bawaasiqu den njool yekkal wut di mel ni ndaamee de <laughs> day tagg sëriñam daj la ay fuuritam hmm. ay duusi géejam ndoxam mu bëri moomu hmm. <coughs> melut xonti xont yi nga xam ni ndox mu xëb la salte xont xont bu xëb bokkut ak fuuritu ndoxam daj la waaye ndaam ak njoola duñ benn de waaye ñoom ñëpp nit rek lañ ndox bëri na waaye ndox mu neex bëriwul wa banaatu en waja doomi kuyu en waj ga laatu jaariha du ndaganteeg ñoom alfara mbaam xàll wa kazaalika noonu al buzaatu xoob ya buzaat la xilaafu eqidin meluñ ni e, e, nu picc ya piccim jéegéet la waaw jéegéet ya xifadi yee firfiri tàppit yoo xam ne boo leen boo leen naaw <coughs> wala xifadi mooy mooy baqaare en kuy géem la gu baax goo xam ne doomam yi dañuy rëy mm. comme ñu naan bale baleeg yooyu mm. doom yi gélimi awaj yi moo mm. ñoo yem ak mbaam àll yi waaye it xoob yi mën ñoo yem ak <coughs> naaru garab bi naaru safara fil asjaari ñu ngi ci garab yi walakin waaye nag maa bihaa déddi nekk ci garab yi mm-hmm. ka afaarihaa lu mel ni afaar mm-hmm. wal marq ak garabu marq min mustamjidi ci aji sàkkoo tubb xal mm-hmm. yow mu bëgg tubb xal li nga xal yi nga mën a jëlee ci garabu afaar ak garabu marq mënoo koo jëlee ci beneen garab beneen garab boo ci am nga ci am ay matt de mais fële la nekk ak lu nekk fii bokkuñ lii de man bu waxee mën naa ko déglu ndax yàlla yemalewut bàyyi sax loolu la wax nee na muqaddim yi sax yemewuñ daraja yemewuñ may kon man nañoo rawante waaye nag ma raw kenn baaxatut loolu Cheikh Tidiane sax waxu ko woon moom mi nga xam ni maanaam mooy xaatimi wilaayat ba mu ñëwee fekk fay tariix daf na tariix yi nga gis yëpp dañuy xeggale ci yàlla ak a baax dañuy yeggale ci yàlla ku ye jàpp man sama tariix li mooy charte bi doy ñu ne lii maam kenn xamu ko doy na mm. lii lii la mos a wax moom mm. waaye waaye mos ñëwul rek fol yëpp ne xalku ngeen ku ma topp nangam nangam mosu def loolu mm-hmm. <coughs> wilaay demeewul noonu nu boobu moo demee noonu nu boobu moom yàqu mm-hmm. waaye wilaaya demeewul ndax ñoom ñoom ñu ngi si daayiratu nubuwatu rahmaan yetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ëmb na leen ba pare mm-hmm. wa shabaaru day niyaati ñawkaay xeeju rudayniya wax mm-hmm. naa dañ ko askane ci rudayniya mooy jabaru samhar mm-hmm. xëyru zijaa ni cat la mm-hmm. <coughs> xam nga xeej dafa am côté bu ñaw bi ak côté boo xam ni mooy cat la ñawut mënoo cee jam ba mu dam ba mu dugg mu ne ñaw ka gi melul ni cat li nga xam ni ñawut waaye yëpp xeej rek la wa zawaibul hadabaati njubbi doji mbàppaar ya xeerul aw hadi melul ni xuur yi njub bi doji ak xuur yi duñ benn wasul xinaa yi borom way lahum ñeel neel maxaasinu ay taar jëmmatul ñoom ñëpp nag lakin nama xasabu sibaaqi waaye bantab jiitu ba maanaam kub ba kub mooy bantub jiitu li maxbat yi ñeel na maxbat maxbat a dàq way ñëpp waaye nag waykat yëpp ñu neex baat lañ mais maxbat leen dàq way li mu wax yëpp noonu la ci namm namul ci suufel de hmm. daf ci namm ne sëriñ yëpp sëriñ lañ waaye sama sëriñ kenn du moom hmm. lii ku ne war na ko wax hmm. bu nit ñi meloon ni jàmm waaye problème bi mooy lii imaam ali radiallahu anhu wax moom fi nekk loolu sëkkata man laa yaalamu lartafa al xilaaf bu wutee bëree rek ku xamul dafa dugg ci làng mais ñaar ñu xam néew na wutee wala bu ñu wutee danañ gaaw a dajee mhm. dajee ci kenn ku nekk nangul sa morom mhm. wala kenn fekk sa morom <coughs> ku xamul du daje mënoo wax a wax ba daje moom mhm. wala li Seydi li Xalifa euh, waxoon rajo Abdoulaye Niass yàlla ko yàlla gërëm mu ne bàyyi nee na ko mm. jàngoo tariwoo mm. jàngoo di tari amul fenn mm. bàyyi ko waxoon loolu ne ko demal jàngi mm-hmm. ku jàngul mënoo tari de waaye Abdoulaye léegi lu ñu sonal mooy bëgg tari te jànguñ ak bëri mm-hmm. mu ne na la bàyyi jur sax mm-hmm. waaye boo jàngul mënoo tari mm-hmm. <coughs> loolu nag moo ko sañ wax mm-hmm. wasamtu jant bi fii kabidi yi ci digg asamaan si samaa yëkkatiku ne ci moom baa di sanaayi di leer di yëkkatiku fu wayxa kulli mukabbidi ci kaw képp kuñ diggal ci asamaan si mukabbidi mooy képp ku nekk ci digg asamaan si <coughs> mu ne bidi yu nekk ci biir asamaan si digg asamaan si bari na waaye jant baa leen sut ñoom ñëpp si digg asamaan si mais jant baa leen sut te jant biir ak yëkkati koom du leer naññ la jant bi yëkkati si kaw asamaan si ko gu leer naññ ba ñëpp koo xam moo sut mboolem biddiw yi nekk si kaw asamaan si kon biddiw yëpp biddiw lañ waaye jant bi du seen morom dégg nga tagg sëriñam mm-hmm. <coughs> ne wari sa doonu na mm. الإمام الشاذلي إمام الشاذلي طريقه يونم وليس جينا يسري دنا رياض سره بوتم للفرهدي نيل دومي جينا وراد مو دومي جينا سما سنين بي موي كان موي كان قمي دفا دون يون إمام الشاذلي كيس نيو باخ ني لين لا تك تك دين لا اسكري سي اب سيري واي باخنا تاو مو سيري دومي نيارو Mm-hmm. loolu ba doomi jaalu ci xaqiqa mm-hmm. xam nga alquran dafa udduhum li abaayim na ngeen askare nit ñi seen bàyyi sëriñ yi ñooy waajuri maanaa yi mm-hmm. taalibe bu amul sëriñ ibnu zina la moom doom ji amul bàyyam nit am sëriñ am ay lijaasa yu am sënat ba jokk ci sa sëriñ bi continuer ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa moo tax mu ne sama sëriñ bi li muy for for kat yoonu imaam Shaadili la doon mhm. te mbootam dafay ñëwaat ci doom ja mhm. kon mbootam imaam Shaadili moo ñëwaat sama sëriñ imaam Shaadili xutbu bu mag la woon mhm. moom ne ko da nga jot tariqa eh, xutbaaniya maqaama <coughs> gis kuy pugaroo man man kenn tarbiwu maa tarbiwu sama bopp man aw ma maanaam maanaam may gis yàlla jóge direct ñëw si yow <laughs> ak mën a nar yàlla dafa wane dégg nga mm-hmm. law kaana fi l ardi malaikatun yamshuna mutmainin la nazalna alayhim min as-samai malakan rasula du ma direct bu mm-hmm. bu fi ay malaaka nekkoon sax mu wàcce ay malaaka yónni leen ci yow yonent bi bu doon malaaka sax la jaan laa war a jural ma def ko góor parce que yéen ay góor ngeen kon góor laa leen booyeg mu jubanti leen mm-hmm. <coughs> moo def foo fekk kuy puugare woon moom moom direct la Hmm. digganteem ak yàlla balancement direct la hmm. romb ko wëy hmm. ko amul sëriñ seytaane di sa sëriñ sanan yoon la woo xam ne taxaadatu addiyaalante na ko masaayixu sëriñ yi xaadatul ñee xommat nit ña li tawaale zuhri jëm way leer biddiw ya taalee biddiw lay firi ak zuhri way leer ak daraar yi da way takk mm-hmm. wala adaraar yi leer ba tey mm-hmm. wala boog yu mel ni wurusu duru al wuqat yi dafay takk <coughs> yoon la woo xam ne sëriñ si ko doon bu sëriñ demee rek joxaat ko beneen sëriñ mm-hmm. ñoom ay njiit lañu woon yu daan xambat niñ jëmee leen ci biddiw leer yuy takk yi a ci yoonu njub yi nga xam ne dafa leer nañu mel ni ay biddiw azim màggalal mm. bi alaamil hudaa ci drapeau njubi mm-hmm. te màggal leen bokk na ci màggal seeni ñooñ kanaa mm-hmm. xamul bi ay saxaabam dara taxul ñu màgg lu may nekk ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. waaye sëriñ it ñaanoon ak moom boo leen xeebee rek xeeb nga sëriñ bi parce que maqaama taali bi dafay mel ni maqaama sëriñ boo ñaan ak sëriñ bi duñ tus sëriñ bi nekku dara rek moo tax boo xasee ñaan ak sëriñ ba ne fonk nga sëriñ bi waxoo dëgg de azim màggalal bi alaamil huda ci drapeau yu njub ya mm-hmm. <coughs> atulaay ñi fenk mm-hmm. fi suburil mafaaz ci yoonu texe mm-hmm. al mursidina ñi daway jubal rushad yi ñi daway jub wala boog fi suburil mafaaz ci yoonu àll yi dégg nga <coughs> jëmu mafaaz mooy àll buy alake mhm. arab dañ laan jël luy halke mhm. lu lu ñaaw tuddee ko lu rafet ngir gàngal ma faas xam nga mooy texe ñu mhm. tuddee àll buy alke ma ma faas pour yàlla may la fu mucc ñu tuddee ku jaan matt salim pour gàngal yàlla may ko mucc sëriñ soo ñu fekk ci yoonu xàll yi di jubal nit ñi gannaaw buñ jubee <coughs> ataay bi nañu dafay tuub alhamdulilah ñu dafay jaamu rabbi mu ñeel seen borom wal xaanitina ñu dafay topp Mm-hmm. yàlla arraakina na da way rukoon sujjóoti ñi da way sujjóot wasaa'ihina ñi da mm-hmm. way xoor mm-hmm. alxaafisina ñi da way wattu xuduudu frontière yàlla wal amirina ñi da way digle bihaa ci yoonu njub yooyu annuhaati ñi da way tere lu bon alxubbadi ñi da way jaamu yàlla sëriñ yu mel nii dégg nga ñooy jiitu tarixa yi gis nga borom daal yi sax si tarixa la jàppoon moo tax bu la ñooñ yi ñooy réer yomal xiyaamat dana bëri kilifa yu réer kon man de tànn naa yoonu bu dee lii mooy réer tànn naa ko mm-hmm. <coughs> ndax réer gi rafet mm-hmm. bu dee leneen mooy gëm mm-hmm. maa naan fa bii si maa yaamurukum bii imaanukum seen gëm gi lu leen di digal a bon kullun képp loo ñeel na ko darbun ak cër za bi xitxin ci fett faalijin bi aji gañe kenn ku nekk ci ñoom yàlla jox na ko cërëb fett gi aji gañe <coughs> ku nekk rek yàlla jox na ko wilaayatu goo xam ni moom ak ña ko topp yëpp mucc nañ fiihaa ci yoonu njub yooyu wa xamlun ak xenu bil xadis yi ci xadis al musnad yi da bañ ba da bañ wéet kenn ku nekk si ñoom amoon na ay xadis yoo xam ne daf ci am sanad ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog la muy wax ci yoonu njub daf ko jëlee ci kilifa ku jëlee ko ci kilifa ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñoom lañ laa wax du ay làmbatu sharafun teraal goo xam ne yu ko ñawee ko cuubee dañ ko màndargalalee bin nujuumi ci goo xam ne bu doon yére lañ ko cuubee mu leer lañ wayes tamit dana yëkkatiku fawqa simaak ci kaw biddiwu simaak ala mururil musnad ci romb jamono yi al musnad ad dahru seen teraanga saa su nekk dafay faray kaw ñëpp dafa rafet ba mel ni biddiw yi lañ ko màndargalee yaa di dana jugal bi haa ci moom ci yoon woowu haadin aji jub rashi aji gindeeku rashidun aji jub baadama haadin gannaaw ku gindeeku wa yaxmilu dana ko yenu sayidun sangaan sayidun jëleeku sang wallahi lii la lii la lii war a tagee ñu baax boo demee ba gis ne ku baax la ne teraanga da koo jëlee ci ku baax kooku jëlee ko ci ku baax waaye nga ne diw mooy ku baax ña dégg nga ñeneen nañ neex waaye loolu xeeb li nga yor la manam dafa xelawu sax la la wax manam aqlu nangu ko comme li gaay di wax ay yaat safara aljana nangam nangam ma loolu xelawul maanaam fii mooy aljana fi moy safara bu nit de yàlla daf ko indi wat ci aduna ñaata la alquran ñu wax na delu ci amutul ñu yàlla daf indi wat ci aduna ci aduna ngari ram na yàlla ni ci yàlla musal bis penc gëm ko ponk la ci ponk lislaam fexel bu kenn yàq ci yow ñu ne boo nekkee nit yaa ngi aljana boo boo toroxee yàlla def la mbaam hmm. wala xar wala nangam def la bàyyi ma pourtant bàyyi ma yi dafa mel alxames lañ leen bind nit ñi ajjuma ñoom lañ njëkk bind sax ci doomu aadama yi hmm. ngeen ne lañ soppi bàyyi ma fu ngeen ko teg mais seen mbindeef bopp lañ hmm. doomu aadama la yàlla mujj bind ñaareel bi mooy bu fekkee boo nekkee nit yaa ngi ci aljana bu nekkee bàyyi ma yaa ngi safara kon aljana du ko génn la parce que nit ñi ñu ngi yaakaar buñ dee duggal safara mm. yéen ngi wax nit ñu bon ñi buñ dee safara lañ jëm te nga ne ñu ngi aljana kanaa ko mm. aljana moom da ngay dugg ko génn rek aljana joo xam ne feebar mm. xiif ñàkk <coughs> isbiro yi mel ni tulleeg mane malle muñ leen muñ leen aljana am na muñ laa yasmuna fiihaa laghwan illaa salaaman foofu salaam rek la aljana yi ñàkk amut wala hum rizquhum fiihaa bukratan wa ashiyyan lahum fiha maa yashaa'uuna la mm-hmm. aljana lu la soob rek yàlla jox la ko mm-hmm. fii ñaata loo nekk nekk kilifa am lu la soob te yàlla joxul la ko xataa yonent na yàlla bu xeetam bi dóorante mm-hmm. la am nañu jàpp ne fii aljana de réer toll na foofu ñu jàpp ne àllaaxira de daje bis ci ñep daje ñu ñëk ñu mujj du xamante mukk ganna ba ko waxé qul innal awwalina awalina wal axirina la majmuuna ila miqaati yamin ma'lum ñom ñu dañ leen dajale ci rendez-vous bis buñ xam mooy bis ci ñu ñëk ñu mujj ñe ñom ñoom loolu amutul yàlla ne la yajmaannakum ila yawmi qiyamati la rayba fihi dañ leen dajale bis ci amu ben sik yonente waxal na yàlla dañ leen dajale naa si fii said annaas ne ñëpp fii saidin wahid ci ben pak ñu ne loolu xamul ku dé sa bis ci taxawal gannaaw bu bàyyi waxee ne yàlla nee na bis penc taxaw na laa rey ba fii amul sikk wa man a min allahi hadiisan danaa dajale nit ñi amul sikk bàyyi nee lu tax amul sikk la bàyyi ne bis alaxira bu ndaw bi mooy ku dee si bis penc taxaw bu diggu doom bi mooy bu ñëpp dee kenn desatut kon moom saxal na ñëpp danañ dee de mu ne bu mag bi nag mooy bu yàlla dekki la jaam yëpp dajale leen ci benn pakk pour war leen atti fariqun fi jannati wa fariqun fi sair mu ne loolooy saatul kubra nga wedd ko du sëriñ nga njëkk wedd hmm. <coughs> ñu ne yàlla dafa jël ruuxu nit ki defaat ko ci beneen jëmm hmm. jëmm jooju tey moom la ñu bëggal wala ñu koy jox xewal hmm. bàyyi na nee na yàlla du def loolu ndax nee na kulama nadijat juluduhum badalnaahum juludan ghayraha saa yu demee ba der yu ñor ñu remplacé leen yeneen der yu bokkut ak yooyu bàyyi ne leen déedéet der ndax yàlla du jël der bu mooy yàlla di ko mbugal waaye der bi mooy yàlla la ñu mbugal boo weddee nag dama ci bàmmee ni nga gas léegi nga gis fa ay ay yax hmm. wala ay der hmm. kon yooyu moom ñëwaatuñ fii moom hmm. ah léegi kon ruux yi yàlla du ko jëlaat di ci jëmm ju di ko lay ko defee lii nga war di wax mooy yoon la woo xam ne ku gindee ko ku jub moo ko jëlee ci gindeeku ku jub waaye amiru mu yenn ko saydun sangaan saydun jëlee ko sang lii mooy tagg waaye ñoo xam ne ku fi jugee yow ñi la toppoon yàqu nañ keneen ak jub loolu tus njub googu nekk ci wóoru sax da waaju bu dee ngaal xal ko yàlla soxoreewul de yàlla soxorul te loolu yëpp ko soxor Hmm. <coughs> man talqa koo dajeeg minum ci ñoom loolu la waaji wax hmm. la laqiita sayidahum danga naan daje nga ak seen sagg hmm. misla nujumi lati yasri bi hassaar yi koo dajeeg ci gaa yi rek danga naan dajee naak seen sang ba mel ni ay biddiw yoo xam ne ku bëgg a ñaan si ñoom ngay jaar nii la mbooloo mu baax di mel koo dajeeg ne kii rek moo fa gën waaye bokk ci mbooloo xas ñëpp jël kenn ren mooy ku baax ko loolu mooy lan xataa tanaaxa ba mu yegg mm. moom njëriñ la li ibnu nasir ci ibnu nasir mm. arida ma damañ gërëm mm. baytal xasidi bayti bi gën a rafet ci xasida ba wa waasitil mutaqallid yi ak diggaleeg caq ba tarab diggaleeg caq ba mutaqallid mooy caq ba ñu ràngoo tar ba ci digg ba gën caa rafet kooku mooy waasit moom la arab yi gënoon fonk ci per yi hmm. mu ne nag ibnu nasir hmm. la gën a rafet ci may yàlla yi ci moom la ko yàlla wàccee hmm. bu doon sëriñ yooyu ay xasida lañ nga ne bayti ba ci gën a rafet mooy ibnu nasir bu doon caq yëpp rafet na waaye nag caqab digg la ba moo di ibnu nasir kon mën naa dégg ñëpp baax nañ waaye sama sëriñ kenn du moom waaye mënumaa dégg kenn baaxul sama sëriñ rek a baax in uridu al islam astata'tu ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu